ndewoy ndewoy ndewoy say mane ndewoy alaykatim kam mangala yaara waaw mais Boucher looloo neex ci combat. mukk cat lu baaxul. mais Boucher coow li bari na nag de. waaw ci làmb say adversaire ñan samay adversaire dañ maa ragal ay Jacob Balde ay boo yooyu man maa leen 35 millions laa bëre maag Alaaji Mbay moo géet 35 millions la ma fay. 35 millions yu tojul dërëm.

mais mais mais tax nga taam waa kër Fallaye Balde yi jóge ci Mbay ne sa ko. parce que dañ maa bañ ndax li ma daan Alaaji Mbay dama bëgg woon leen ni maa leen gën a rëbañi xam nga rëbañi. rëbañi waaw man rek lañ een pour li ma def Alaaji Mbay. mais yaa Alaaji Mbay 1-1 la loolu la ñuy bañ bàyyiwuma fi Jacob bàyyiwu ma fi Pokola bàyyi Babacar laa fi bàyyi parce que Babacar xale la màggagul mais bu ma paree ci Jacob sax daan ko xam nga Jacob moo raw Pokola mais damay bëri Pokola man foog ah Malaw moo njëkk nag. mooy fii mais Malaw ñemewu ma. pare nga ko bëreeg Malaw. barke Serigne Bamba avance bi bu ñëwoon du fanaan mais li muy laaj moo bari mais Ama nee na luñ ko fay mu jël na na promoteur yi wax. maalaw bëgg na bëgg nga maalaw. maalaw bëgg naa Pokola bëgg naa Jacob Balde bëgg naa jokel bëgg na Jokkel comme laa gën a xiif. Ah, Kéba Kanté ngi woote sama digganteeg moom jàmm mu naan bugg ci jàmm maa ko gën a bañ jàmm. je suis fair play mais lamb bugguma ci jàmm. Arboulé avant muy am combat seen diggante. Jokkel day joxe teraanga. teraanga gi jol Jokkel du joxe. yanda foog ma jël ci sama wàll. yandaat co teraanga duma ma jéggi man teraanga ay gileem ak ay xaraki bëy jox la teraanga am lekkal eh. dama cee bëgg a jël sama wàll Jokkel dama ko war a daan sama parcours waaw Jokkel daa ndelu ma ndelu xaw ma daa leel nañ bëre ñoo bokk lépp <laughs> mais avant ak Boury daam combat ñu ngi tax ngay teggi ñooñu di laaj ay jokkal non non boog jokkal bay làmb maa jokkal mooy làmb Alboury defu fi dara Alboury barke démb la siiw du ma moroomam ci làmb fi ma taxaw Alboury taxawu fa du benn poussé siiw na te bëri booy yooyu li may def ci làmb duñ ko def ci làmb booy man 10 millions laay ngemboo booy 500 sa da leen di të pour reer bokkul de. dégg naa day day am combat di dimbali ki muy bëree. moom laa lay wax damay jox promoteur bi ne ko joxol ma ko xaalis mu lekk El Hadj Mbaye man ak moom toll nañ foo xam dama ne moo géet eh mu ne ma naam ma ne ko woo ñu Radisson mu woo ñu Radisson ma ne ko jox xaalis mu jox xaalis ma ne ko El Hadj mu jub ma ne ko demal mu dem. man loolu laa sekk ak ñoom. boobu la laaj ko dama ko woo ne ko El Hadj Mbaye foo ne mu ne ma lan la. ma ne ko xuloowuma xeexuma suñu làmb ñëwagul nañ dem radisson ñu jox la xaalis mu ne kenn du yow doo doo sama noon yéeg ci oto ma yóbbu ko mu jël xaalis dem yoonam ànd ak benn xaritam buñ naan moomoo. dëgg la loolu man du ma ci waxagum. damay entraîné damay ànd xale lu xale yi wàq ma suul man dama ne dama am loo xam ne lu lu jafe waaw muy damay ànd ak sumay rakk waaw. ma leen di motiver ñu may motiver loolu day neex suñu gisee tey su may ànd ak ñoom di entraîné day gën a neex loolu moo tax yàlla na yàlla suturaal te musal cat a jur. lu mën a jur lu ne. a jur lu ne ndax tey jii ëllëg mën na ñëw football waa Pikine wala waa Thiaroye wala waa Diamaguène loolu rek la pour foofu léegi woon ni mbër yëpp ñoo bokk ndeg baa dañuy liggéey su jeexee jeex na. mais dër bi am parcelle Guédiawaye. waaw gis nañ ko moom ak Balla Gaye. waaw neex mu nekk fi. waaw mu ñëw fii xam xam nga ñamoon na fi mos nañ fee football ah way waaye balaa gënoon neex tey mu nekk. égalisation égalisation kan moo def lii. <laughs> mais ñu ngi delloo Gère Fall. ci nekk ci lu baax rek comme d'habitude. tey yaa ngi géej waay de. waaw géej waay ah, tey. nga ñëw fii lu mu lay fàttali ci anecdote. waaw fii ñëw nañ fii ay nawetaan football nañ fii mu yaay estar bu tamit am na bari waaw. waaw li ñu fàttali première fois bi mbëri dajaloo fii mooy jamono Ebola bi. bi xaalim Gadiaga organisé woon ak ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo moo réussir woon trop macha allah quoi ñu ñëwaat fi tey nag lu rafet la quoi. marché Dagala diggante parcel ak Guédiawaye initiative fan la jógee. initiative bi moom guy gi moo ko initié quoi guy gi moom xalaatam la moo ne gars yi ñu def 100 pour cent ñu ñëw Guédiawaye ak parcelle euh, ñu football te loolu njëriñ kese la ah 100 pour moom na mbër mu ne xam ne ne sa njëriñ la gox la ndax bu ne 100 pour cent rek bu jugee rek ku nekk day jug. kon intérêt mbër mi la intérêt promoteur bi la intérêt làmb la aussi ñu fexe de 100 pour cent yëpp nekk benn ñëpp mun ñoo àndandoo nii quoi mais ñu yéenante jàmm nekkante benn rek laay laay ñaax ñëpp nag kii que ce soit doon rek njëriñ ñëpp la a jur waaw lii jàmm ak saama lay a ñemewaat làmb xam ne ne mbër yi duñu ay ennemis dañuy daje benn bokk lépp ñooy demal ñooy dikkante ñooy daje ci ngénte yi ñooy daje ci tàq yi ñooy daje ci dëj yi kon pourquoi jeexee ñu toog boole football bu làmb euh, boole Papa Sow ak waa Guédiawaye dañuy bëri waaw nii rek pa xam bu yàggul dara góor Sow ak Fils de Balla bëri nañu te ñàkkul ne ci booy am na ay combat yoo xamante ne nii ñu ñu ngi dox mais loolu loolu su loolu lu ñëwagul la président fi mu toll nii moom mooy ñu foo wane image bu rafet Mm-hmm. waaw. waaw bëgg naa ci yow. bëgg nañu. jaajëf. yéen a ngi gis këru Ketchup. gis nañ ko mu rafet. ngeen gis ko muy dawal ay oto. ñu dem fu ne. yàlla moo dogal loolu dafa nekk dëkk boo xam ne boo demee gëm sa bopp da ngay gaaw a teg yàlla mooy def loolu ndax liggéey dafaa am États-Unis ku naan la neexul waxul dëgg xanaa kay tayal ak bañ liggéey moo fa am waaye ku naan la neexul waxul dëgg kii gaynde la jàmbaar la xam na ni tamit cuune du fa nekk ndax liggéey bi dafa metti yombul waaye loolu liggéey fayeeku duñ la yoreel dërëm mi ngi nii laaj ko ndax mës na ma teg bët biir New York laaj ko. boo amee tamit bariwul quoi. boo amee bariwul parce que taluñu ko ndax taluñu jot bi mayewu jot bi mayewu ko liggéey rek la ñuy def man dama doon liggéey trois liggéey kii day liggéey restaurant ba pare jóge fa dem jaayi ay saak guddi gi mu dem def sécurité man may dem raxas ay bool guddi ga ma def serveuse ci nuit bi ma def sécurité. ay 4 heures du matin ah, ñun ñett liggéey la liggéey <laughs> on travaille bien tey moo waral mu ubbi salle bu mag Cambérène war ko inaugurer suba man maa fay jiitu suba na presse bi yëpp ñëw woo naa ñëpp suñu yëf la Cambérène na leen ko gën a mais li ci gën a ñu dañu gis Moussa Dioum ci photo ci sa kii ñu koy ñu koy rendre hommage ndax ñoo ko liggéeyandoo mu metti lool ba ñuy dem bàyyi ko fi ba ñuy ñëw fekkaatuñu kon ndogalu yàlla yal na yàlla yërëm ko taxare ko àjjana mook julli ñu fa fekkoon yëpp yi fa fekk yëpp Ya ñu ko ci rendre hommage di ci wo mbeur yëpp tamit ak presse yëpp suba inshallah allah 17h Cambérène. 17 ken bàyyiwuñ ken wa ñu ngi wo ñëpp. Dakar lan Dakar people ya, bi fekkee TV bi dégg naa Macky Sall day wàññi ay sites yu bari maa ngi ci boole. <laughs> ah, ah kon ñi ngi woo ñëpp daal ñi ngi woo ñëpp ni la demee waaw li mu wax rek looloy dëgg waaw ñi ngi woo ñëpp suba incha allah 17 heures gaay one love gaay mais retour yanda yanda day dellusiwaat ci arène bi wala euh mën nañoo delluwaat ak beneen facette nak mais du du du takk ngem bu bëriwaat du tak ngem bu bëriwaat ya yaakaaruma yanda bàyyi na bayina bàyyi naa bëriwaat bàyyi ma laam jeex na ndewoy ndewoy ndewoy say maane ndewoy alaykati kam mangala yaar